donc euh, tey comme ni ko gisee dañu euh, nekkaat di maanaam di mandargaal ñaareelu bis bu nga xam ni moom la ñu jagleel maanaam li ñuy wax sécurité sanitaire des aliments maanaam mooy euh, li nga xam ni mooy jumtukaay yi nga xam ni moom lañuy ñuy dundee di ko lekk.

ñu jagleel ko jour bu nga xam ni si lañ koy lépp li nga xam ni moom moo jëm si mbiru sécurité sanitaire des aliments si lañ koy euh, maanaam euh, màggale daaw nag buñ ko doon def ñu ko doon defee fële si Kaolack mais Sénégal dafa jëloon benn soutem boo xam ni dañ ko jagleeloon surtout li ñuy wax aflatoxine mu nekk benn tooke boo xam ni day nekk si yenn saa yi si yenn céréales yi notamment si nga xam ni gerte gi la wala mën na nekk tamit si euh, maanaam euh, maïs maanaam euh, mboq ak yi demee noonu ren nag même tam bi la sécurité ande sanitaire des aliments nga xam ni yëfu ñëpp la loolu moom mooy tam international bi mais nag ren dañuy ko jagleel si soutem bi maanaam sécurité sanitaire des aliments si biir marché yi xam nga comme marché yi dafa nekk foo xam ni moom mooy euh, bërëb bu nga xam ni lépp li nga xam ni moom lañuy lekk mën naa wax ni foofu l'essentiel bi foofu lañ koy jënde di ko fa jaayee donc dafa nekk foo xam ni war nañ koy gën di seetu di waxtaan ak ñi nga xam ne acteurs yi nga xam ne ñoo nekk si biir marché bi pour que ñu jéem am information yi nga xam ne moo leen di may que euh, ñam yooyu nga xam ne moom dañuy jaay nit ñi ñu xam nan lañ koy euh, manipule nan lañ koy dencee nan lañ koy conserver ba nga xam ne bu ñu ko jaayee nit ki nit ki bu ko yóbboo këram aussi mën na ko lekk te du ko utile benn loraange. léegi nag dafa nekk euh, tey journée de lancement bi nga xam ni dañ ko jagleel surtout pour les marchés mais yaakaar nañu tamit au delà journée bi bu weesoo it.

Euh, euh, euh, maanaam sécurité nga xam ni ñam yi togg dara du si am benn took du si am benn microbe du si dugg ñu jéem a gën leen waxtaan ak ñoom pour ñu gën a leen yee si si si si si si comportement yooyu gis ngeen sànq si biir présentation am na présentation bu ñu def nga xam ne moom la ñu wax les cinq clés nga xam ni moom pour les aliments sûrs nga xam ne moom la nit ki di war a dëkkee pour que lekk lu muy lekk bu ko toggee bu ko lekkee du ko jural benn jàngoro si biir yaram yooyu tamit yaakaar nañ ne après information bi dina dem foofu te tamit yaakaar nañ si consommateurs yi ak euh, mbépp acteurs yi nga xam ne ñu ngi jëngatu si mbiru sécurité sanitaire dinañ si jàppale en tout cas euh, comité national du codex alimentaris pour que ñu mën si dimbali population bi pour jéem a wàññi xeetu feebar yooyu nga xam ni si lekk lekk bu sellul si lay jóge mën nañ wax ni benn nit bu nekk si fukki nit yi dëkk si àddina bi dina si am kenn xam ni dina am jenn jàngoro boo xam ni si mi ngi jóge si lu muy lekk te boo xoolee bu ñu ko nattee it nekk na si maanaam quatre cent vingt million yoo xam ni doomu aadama si ñàkk seen at euh, ñoo si ñàkk seen bakken at bu jot li xam ni dafay euh, euh, jóge si xeetu lekk yi nga xam ni baaxul donc euh, lolu dafa wane que ni dafa nek euh, lu am solo lo xamni il faut nit ñi léegi ci siy wat xel ci siy wat xel pour que di moy moytandiku yoy nga xamni mom moy risque nga xamni dafa dafay ci si produit nga xamni mom lañuy la parce que lek mom dafa nek lo xamni nit il faut mo def ko pour mu mën dund mais nak lu ñuy wax lek boobu dafa nek war a mu nek lek bo xamni day sel pour que bo lekkee mu mën la jariñ bañ la lor donc lolu mom motax heureusement ko gis nañ ni bon vraiment autorités yi léegi gis nañu euh, risque boobu te ñu ngi fiy bàyyi xel te ñu ngi fiy jàpp bépp acteur bi nga xam ni yaa ngi yëngatu pour xeex loo xam ni genre yi euh, jàngoro yooyu nga xam ni mën nañoo si nit te di koo si li ñuy lekk.